réaction bi nga xam ni am na ko gannaaw bi ko fay la Baron woowee euh, ngir rek euh, bëgg koo ndax ba mu dellu siwaat ci réew mi euh, firndeel na ko mu mel ni nag diggante Sangomar ak papaam di Babala Der ñàkk déggoo am na ci seen biir te loolee nag li te lu leen jotale ba tax kenn bëggul gis wala mu dégg moroomam secret bu rëy la ndax rek Baba Der jamono ji reconnaîtreul sax ni Sangomar doomam la waaye Sangomar itam lijjantiwul ni sax am na papa bu ñu naan Babala Der waajur tolloo ak doomam day fekk nag li leen li ko undu lu rëy la te it nag du ay caaxaat ñu jàll ci beneen séquence te mu dox ci diggante Dabi ak jabaram Florent euh, foofu nag ñu ñu jàngee fa rek nii couple ñaar a ko seq ba tax na nag euh, du ko góor ki rek moo war di wax euh, xalaatam wala moo am dëgg ndax tey jii Dabi déglu na ki nga xam ni moo di jabaram déglu xalaatam te ba mu paree nag nangul na ko ko loolee nag di lu jafe ci góoru léegi yi ndax jàpp nañu ni jigéen da gatt eh, ba lepp lu mu wax rek eh, du nonu wala nak du xalaat bi gën eh, mu melni nak nag dañoo fàtte ni yalla suñu borom bi nga xamni mom mo moo leen sàkk ñoom góor ñi mo sak jigen te bepp doomu adama nak suñu borom la bind defal la xel ngir rek nga cey xalaat ba taxna nak ni dabbi def leçon la pour goor yépp ñuy bañ nak di xép seen xalaatu jabar te di leen déglu ak di waxtaan ak ñom si lepp ndax lolé sax du def rek lu gëna gën seen itam moy tax ba réro wala wera werante rek du am ci couple bi euh, Rayane nag moom euh, di jëkkëru Nabouza euh, moom nag donte jàkkaar jàkkaarloo na ak jabaram wax ko ni ko day doxaan ku ko respecté la mu mel ni nag keroog bi bi mu koy wax daa meroon te it nag comportement wam moom Nabouza moo waraloon ba mu wax ko loolu ndax gis nañu ni bi mu demee ci xale bu jigéen bi nga xam ni moom lay nekkal 19h la ko tàggu rek ne ko maa ngi ñibbi sama kër si noonu nag mu xamal ko ni ko sama jabar dama ragalu ma ko waaye nag dama koo respecté euh, mu mel ni kon euh, Nabouza bu amoon comportement bu gën euh, amaana jabar amaana jëkkëram du dugg ci ay doxaan ba tax nag ñu bari ñoo ngi def loo xam ni ci seen biir néegu sëy du du du li nga xam ni moom moo leen gënal waaye comportement seen partenaire moo leen ci yóbbu ba tax nag muy góor comme muy jigéen war nañoo gën a góor góorgóorlu ci néegu sëy yi te ñu jiital ci nag yàlla mi nga xam ni moo ñu ko digal ñu jàll ci fay Roy le Baron ak doomam Delia euh, Baron nag comme li ñuy wax rek xolu waajur si doomam euh, tey jii gannaaw bi mu waxtaanee ak doomam ba xam ni nag euh, nekkul si jàmm yaramam daw na waaye nag rëccu dina fekk jëf wees ndax tey jii fi mu dugg di mbirum rab bu ca bëggoon a génn bakkanam kanam sa amaana xaj na ci te du ci am ndam ba tax nag nit lépp loo xam ni rek moo ngi ciy dugg wala mu koy def na fekk nag lu leer la ba bu ëllëgee bu ca bëggee génn du ca am benn yenn tolof tolof euh, muy nag dëggal li ñuy wax saa su ne euh, te mooy nag def lu baax rek moo noppal boroom ñu jàll ci Nabouza moom nag li muy tiitaroo saa su ne rek mooy li mu am jëkkër euh, waaye nag heureusul benn yoon ci néegu sëyam boobu donte nag wane nañu ko wanewu ko ci biti ndax à chaque fois rek day gis mu gis jëkkëram mu gis ci jëkkëram loo xam ni neexu ko waaye nag loole li ko waral mooy Nabouza alal moo ko dugal ci sëy boobu ba tax nag lépp lu mu fay jànkonteel rek moo ngi koy jéem a muñ loole nag bëri na si li nga xam ni dañoo dugg ci sëy ndax intérêt euh, ndax xale bu jigéen euh, yu bari nag euh, dañuy dugg ci sëy parce que ku góor ki star la wala nag daa am xaalis wala daraja te boo duggee ba ca biir nag nga daal di xam ni li nga foogoon wala li nga doon gis ci biti wuute na trop ak li nga xam ni moom moo nekk ci biir te su boobaa dangay toog te jéem koo muñ ngir sagal sa bopp loolee nag conséquences yi bari na ndax paix lu am solo la doo ko mën a am euh, te te bu te boo ko amul nag ay feebar euh, yu bari nag mën na laa dal euh, lu ci mel ni goitre cardiaque ak yu ni mel. Baron nag nekk na boroom kër boo xam ni nag bu autoritaire la mu mel ni nag sànq li ñu doon wax rek ci dabi wute na lool ak moom doxalinam ndax moom heure bu jabaram joxewee xalaatam ci ay doomam rek day dal day daal di dal ci kawam di ko yuuxu mu mel ni nag jabaram mayu ko mu dogal dara ci kër gi rawatina nag muy jël benn décision ci ay doom yo xam ñom ñaar ñoko bokku jur euh, muy nak dëggal euh, lu ñu doon wax sank rek euh, ni jigen mën na sey ak borom alal te du ca gis bopam ndax li gëna metti moy ngay sey ak ko xamni rek considéré wu la dalaa tek rek ci kër ga comme meuble lijjantiwul li la neex wala li la xari ba tax na nak képp kuy dugg ci sey na nga ko xol xolaat ko ndax nak damay dégg ñu naan sey la ko tak tasuko ko kon xol bu baax fa nga xamni fofé ngay dugg bala nga dem ba ca biir di ci am ay regret te su boobaa euh, doo ca mën a génn ñu jàll ci beneen séquence Saint-Louis nag moom gis nañu ko ci série bi nag moo ci gën a euh, yar njabootam euh, ndax rek bu jabaram jàddee yoon da koy daal di corriger waaye doom ji itam naka noonu mu wute nag ak li nga xam ni ñi mu bokkal entreprise noonee la ñuy doxalee ndax moom si lu jub rek lay nekk di ci dox te it loolee lay digal képp koo xam ni yaa ngi ci leneen noonee la ko defee si xaritu doomam yi nga xam ni dañu faa ñëwoon euh, di jouer ak doomam ndax ku nekk si ñoom rek jox na la leçon boo xam ni euh, boo ca toppoon rek euh, di nga nekk fierté say parent waaye itam di nga nekk fierté réew mi waaye comme li ñuy wax rek ci xale yi tey wax mën mënul si ñoom dara ndax seen réaction wane na ni nag li saint wi bëgg te mu digal leen ko xalaatuñu koo def ci seen àdduna mooy li ñuy wax rek ndaw bu nekkee ci digg àddunaam day jàpp ni bu asamaan si doon wàcc sax mën na koo taawu ñu xam euh, lu leen të. Sangomar nag gannaaw bi mu xalaatee euh, li ko baron wax euh, jël na nag décision wu ñibbisi ci réew mi mu mel ni nag xolu ñeewental daa daal di dugg ci moom jëm ci papaam ndax baron dani ko rek sa papa moo ngi ci diggante dund ak dee loolee nag bépp doom boo xam ne nag wax nañ lañu wax nañ la ko ak lu la mënti jotale ak sa papa yaakaar naa ni di nga ko fa bàyyi daal di dem seeti ko ndax nag waajur ak nu mu mënti mel rek waajur la te it nag diggante doom ak waajur yàlla da caa def secret boo xam ni euh, kenn rek mënu koo expliquer euh, Delia nag gannaaw bi mu désespéré ci li nga xam ni euh, dal na ko kenn rek la njortu ni mën na koo cee jàppale te mooy reyaan magam ba tax nag mu daal di koy seeti ngir mu xool nu muy def ba mu rek faju reyaan nag moom it nekk koo xam ni ku bëgg rakkam Delia la te it nag da koo yërëm torop ci li nga xam ni moo ko dal ba nag mu ni ko dinaa la si jàppale loolee nag di réaction boo xam ni eh, képp kuy mag rek war na koo am ci ay rakkam eh, saa bu ñu soxlaa ndimbal eh, ndax rek waajur waajur la waaye nag bokk benn geño ak benn biir boo xam ni si ngeen jógee loolee nag mbokk mënu koo weesu ba tax na nag képp kuy mag dangaa war rek uuf say rakk daal di leen jàppale taxawu leen ci bépp boor bu mu mënti doon ndax àdduna bi ni mu toll bu fekkee nag yàlla dalaa jël daal di lay boole ak ñenn ñooñee da ngeen da leen da nga kaa war nangu daal leen bëgg tey toppatoo leen te xam ne mbokk moom euh, moomeelu ko yàlla la Nabouza nag nekk na jigéen boo xam ni euh, bu bon la ndax Deliya mi nga xam ni rakku jëkkëram la euh, jox joxu ko cër benn yoon ba noppi nag saa su ko gisee rek di ko fàttali li nga xam ni mooy faru rab bi nga xam ni moo ngi koy dund te naan ko rek jëkkër doo ko mës a am loolee nag tey yëngal rab bi ba tax rek mu daal di koy tëkku ni ko nag li nga wax dinga ko rëccu te sa reetaan yi ci ay jooy rek lay daal di mujjee liggé kon boo tax internautes yi fi la yem ak yeen tay ma jox len dig dajé ci benen euh, épisode bu sen série soa waye lata bobu nak euh, wéyal len di abonné ci 5 TV té bu len faté nak ba suñu cloche de notification bi ngir jot suñu yeneeni vidéo euh, jërë ngeen jëf et à très bientôt inshallah